buñu seetloo itam yonente bi day koo xam ni dafa fàggul aw xeetam loo xam ni monsieur Fouta gis it bu yitte woo noonu aw xeetam ndax wax nañ ne wax na ne moom ci moo wax alayhi salaatu wasalaam ne yonente bu ne yàlla dana jox genn ñaan goo xam ni du ko delloo nga xam ne sa giirub dund lan la ci may genn ñaan goo xam ne loo ko ci ñaan ci ñaan googu mu mu mu jox la ko waan du ko delloo ko ak yeneen ñaan yi nga xam ne day xool dala ko la ko jox wala mu koy wattee leen yonente bu ne am nga genn ñaan koo xam ne yàlla dina ko assuré nga xam ne faw mu jox la la nga ci ñaan waaye ne dafa wax ne man ñaan googu yonente yi yi fi jiitoon yëpp kenn ku ne ñaan nga ci dara waaye moom ñaan googu da ko denc ëllëg yomul xiyam ngir buñ fa àggee mu ñaan jullit ñi yàlla bañ ci lakk kenn boo gi seetloo itam xadis boobu xadis bi nga xam ne moom la ñu bare bari def imaamul Buxaari imaam Muslim yi ngi ci téere xadis yëpp ay riwaayaat yu bari la nag mooy yowmal xiyam xam ngeen niñ ko waxee taxawaay ba day yàgg ndax bis yow ma xiyaam ak bis yi daa bokkul ndax inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin maanaam maanaam benn bis foofa day tolloog junni bis fii junni at junni at fii mooy tolloog benn bis foofa moo tax yowmal xiyaam taxawaay ba day yàgg dañuy tàmbali suba di taxaw ba ba ginnaaw tisbaar hmm. loolu nag ay maanaam fi ne dañ koy xaw a wàññi ci ay juróom-ñaar fukki junni at daanaka ci ci sun ci sun bisi juroom ñaar fukki jooni ay at 70000 dix mille ans la <laughs> taxaw loo xam kenn du yëngu ni kenn ku ne taxaw fi nga taxaw ne kenn bu ko itam jant bi itam boo maanaam ceeñeer jant bi du wacc man ida samsu kuwirat maanaam jëmmi jant bi dañ koy dañuy dind ceeñeer yi way day tang nak jant baangi fi tang jëpp lu jëpp di tangori way waaye ceeñeer yi mu dul wacc mu tax muy dëndam ñun du lan na ñoom mooy ñi nga xam ne ngëmoon nañ ñu gëm ci ñi gëm yàlla moom seen seen ngëm lu mu toll ci ñoom rek lañ leen defal ab ab lamp lañ leen ko defal seen seen jër ci gis bu ñuy dem ca taxawaay bu fa ñuy taxaw bu ñuy dem gis nga li alxuraan wax yow ma yaqulul munaafiquuna wal munaafiqaatu lilladina amanu unduruna naqtabis min nuurikum maanaam bu ñuy dem nii naafiq yi xam nga dañ dañ leen di boole jullit ñi fi ñu fi dekkee te dañu gis jullit ñi yor ay ay leer ci seen ci seen jëy xam fi ñu taxaw fi ñu jaar maanaam jullit ñi bu ñuy bu ñuy dox dañuy gis fi ñuy jaar ndax foofu yoon wi ñu jaar day bari ay ay ay ay pax ak ak luy gaañ ak luy fakkatale su ko dee ñoom nag ku ci ne tëll ci dara ñu wax tëll ci dara day dara jekke gis gaañ ñu yor ak leer ñu leen yéen unzuruna naqtabis min nurikum maanaam xool leen fii nu bokk ci yoon yéen ginnaaw nu bokk fan jëm xool leen fii ci kanam nu bokk nu bokk yoon loolu la naafiq yi wax xiilar joxo waraaku malaayka leen sawaay arrière leen yéen ir joxo waraaku mooy fii kenn du fi nitu ci leeru keneen ci atal ba ba gis ba ngeen na ay jaxé waaye bu ñëwee ba ag nak ba taxaw nak dañuy taxaw diir bu yag juroom ñaar fukk junni at yoo xam ni dañuy taxaw kenn ku leen dañ la defal baraas rek sa diggante ak sa morom ba moo tax li ngay ñak bu bu bu bu roote bu bu roté ci suuf du dem ci keneen day yam ci fi nga ne moo tax nit ki ñak wi di di yéeg di yegg ba doon ci mom geej mu lapp ci taxaway bobu nak bu yagge yonent bi daa wax ne xam nga ci la yàlla suñu borom wax ba tàyyi diggante so limanil mulku al yawma laaj ñi fi doon nekk buur kan moo ci buur tey ñëpp ne kenn kenn du wax coow de ñëpp su ko defee nag dañuy jékki-jékki ba balaa bu yàlla suñu borom bëggee àtte jaam ñi day jékki-jékki wax wax wax wax joo xam ne koy dégg da koy malaay koy jot li malaay ko ñoo ko jot li loolu yëpp mi ci waa di net li yooyu mu wax su yonent bi wax ko wax ne suñu borom day wax aadama ne ko aadama mu ne ko labbayka rabbi wa saadek daal di koy mu ne ko aadama génneel baasu naari min durriyatik maanaam ñi war a dem sawara ci sa sëdd yi laa bëgg nga génne leen ñu génne leen bu ko dee aadama ne ko ma baasu naar yi maanaam loolu li ngay wax mooy lan baasu naar ñi war a dem sawara ñooñu mooy ñan ñen loolu la ko Seydina aadama yi wax nee na suñ borom ne ko junni boo jël daal ci gàttal juróom-ñeenti téeméer yi ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñëpp ñooy baaxu naare mooy ñëw jëm sawara maanaam junni boo jël kenn kenn gàcce ne buñ ko waxee maanaam xale yu ndaw yi nekk ci ci jotaay bi nga xam boobu dañoo dañoo faatu ak ndaw dañu ñëw suñu boobu dañuy tiit ba sax bi jaaw loolu yonte ndax loolu dafa fekkee tey maa li fa taxaw lépp junni bu nekk kenn ci kenn ci loolu xam nga day dewaar foofu nag la la la coow di tàmbali ma nit ñi yonte bi ne dañu daan dem ci aadama ci boppam ne kon nag yow yaay bàyyi mbindeef yëpp yaa na fi indi yow it la yàlla la yàlla daa teral lu bari mooy nafaxa fii fii ka min ruuxi maanaam ruuxam la la def ci yow ñaaram itam xalaxaka bi yadayhi bi yadayhi maanaam dala bind bind boo xam ne bind ko keneen ndax yow la moo la bindal boobu ci gàttal wax yu bare bari ñu defal aadama xadis bu gudda gudda guddul sayyidna Adama bu ñu waxee ba àggal da leen di wax ne ah lii ngeen wax lépp de du tay ba muy am ak tay ji wute na ndax tay suñu borom joom daa mer mer moo xam ni ñëw mu faa dem di wax lenn ne bu ko dee ne nag xalaat yi dem kon ci noox sayyidna noox sayyidna noox moom bu ñu ci moom wax wax ba àggal ne ko yow yàlla dara wax nangam nangam wax wax ba àggal mu leen lool li lool yi ngeen wax lépp dëgg la waaye du tay tay jii moom moom wax dëgg yàlla ñëw maa dem ci سمرم غضب غضب إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ما تاني مفارم دوخ لين دار موي مر مر مو خاري موسو كومير دار لين يابال سيدنا موسى سيدنا موسى موي وخ لين لول موميت وخات لين لين نوخ وخ رك لين دم نتي سيدنا عيسى سيدنا عيسى موميت وخ لين لول لين دم لين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنيي بوخ كو بو اغال داي وخ ندامي اندك نيت ني نلن an naa laha mooy loolu maa ko fi man man rek maa fa sañ a dem ci moom te du te du ma kenn ku fa dem muy muy ne da jafe-jafe leen daal di ñëw buntu buntu àjjana fëgg ñu laaj ko kooku kum doon muy leen Muhammad ñu ne ko yow rek lañ ñu wax de boo fi ñëwee ñu ubbil la nee na ñu daal di may ubbil buntu ba bu ma duggee nag ba seen sama borom nee na ma su ma ma sujjóot tam li di ko tagg loolu mooy al al al al al maqaam mahmud sallallahu al maqaamul mahmud maanaam tàmm di ko fa tagg tagg yoo xam ne nee na bis booba la ma ko yàlla xamal waaye tey jii sax fi ne xamaguma ko tagg yoo xam ne day kawe lool suñu borom da cay bëgg kon suñu borom daa lu ñuy wax ak ñoom ñun nga xam ne ñun sama kalaal gi fi ko yàlla defal daal da nga maa ngi sant rek waaye mënoo ca yokk leen gaa ñu baax ñi nag wene xasida yi moo tax bokkut ak leen ñoom ni ñuy waxee suñu borom suñu borom na cay bëgg yéen tey moo tax nee na foofu boo sujootee dana wax dana ko tagg-tagg ba mujj nag mu ne ko yaa Muhammad irfa rasak mooy yëkkati jógal sal tonta loo ma laajtee ma jox la ko wasfantu shafa loo fi koo koo tinu tin ko nee na ma ne ko durriyatu aadama laa toxraqu bin naar maanaam sëti aadama yi laa bañ ñu lakk leen ci sawara moom laa lay ñaan sëti aadama xam nga mu yaatu na waxut jullit ñëpp sëti aadama yi nee na suñu borom doo ko wax ne ko demal ku ngeen fekk ci ñoom mu am ci misaal lu toll ni móol ci ngëm ngeen ngeen na ngeen ko jël yóbbu àjjana mais ñu dem wër koo xam ni daal sa ngëm ngëm yi xam nga baax day natt kenn ku ne lumière bi nga yor rek mas ngeen natt xam xam benn état ngëm nga yor léegi bu ñëwee ne nag génn ba noppi teewut mu desaat fa mbooloo mu kenn xamu ni toll mu ñëwaat defati na mu defoon su jóot wax ko tagg ko ba suñu borom ne ko jugal mu ne ko demoon ba mujj mu ne ko boo demee ku feer lu toll ne dinaar ab dinaar muy ab dërëm ci ngëm nañ ko génn mu dem àjjana jéggal naa ko nee na mu ñëw génn lépp teewul mu defaat fi mbooloo mu bare bare mu ñëwati defati nam defoon suñu borom wax ko ne ko ba demee ku fa toll ku fa toll ne sànq leen ci ngëm na dem àjjana nee na ñu dem génn ko teewul nag mu desa fi ñoo xam nit ba tey bari nañ lool nee na lu ci ne day ñëwaat wax nam wax nam ñu ko wax su jóot da nga maanaam tagg ko tagg yooyu maanaam suñu borom ne ko demal mujj nag mu ne ko ku wax laa ilaha illallah rek dem nañ jël ko nu mu dugg nu mu dugg sawar na teewutil mu desaat fi ñoo xam ni ñoo xam ni maanaam suñu borom da koy wax nag ne ko léegi nag maanaam léegi nag ubbil buntu ràmm bi maanaam bàyyi maanaam gaa yi war a ràmm jox leen ndigal maanaam nga ne yonte foofu la joxe ndigal aadama ci moom ci la tàmbali moom it dugal lu bari ci ci ci ci ci gaañ yi la mu war a yàlla ko yàlla may mu war ko ràmm mu ràmm ko yonente yëpp def noonu gaañu baax ñu def noonu yonente bi nee na ab jullit rek ab mu'min foofu dana fa ràmm lu toll ne ñaari giir ñu wax mudar ak rabia te ëpp ci arab yi masalan mu'min laax de waxuma gaañu baax kilifa yu baax yi Seydina Ousmane gis nga maanaam Seyd Seydina Muhammad mas na ko wax ne moom dana ram sab'una alfan wa kullun xaqahu naar maanaam juróom-ñaar fukki junni dina leen ram ëllëg gis nga bari na loolu ci xadis yi loo xam ne dañuy wax ne ku ko def ci misaal wala ku da ram juróom-ñaar fukki junni wala ci ci say bokk foofu nag la ram ma daanaka sawara suñ ña fay dugg mooy ñi nga xam ne maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam dañoo rëy nga xam ne mosuñu dañoo wër mar dara rëy suñu borom ba pare rëy te di yéefar ñu ne daa ko ñoo fay def moo tax loolu nag la ko koy ubbi nag maanaam kooka mooy Seydina Muhammad teraanga jooju ci moom la ko def yëpp amee moo tax weeram wi di ma teg moo tax suñu diwaan gis nga li mu wax yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham yaa xayra man rahima masan gaa ñëpp yonent yëpp koo ci wut nafsi la lay wax sama bopp moom moom la gën a tal ci ci yéen nee moom rek moo fay taxaw wax ak suñu borom kon loolu jar na rek ñun yépp nuy bëgg ci moom te bëgg ko te it moom ci moom daana wax ne képp koo xam ne yàlla tawfeexal nag nga bëgg ko sa yaram maanaam yaram wu ko bëgg maanaam ak bëggam bëgg yonent bi alayhi salaam yaram wu ne rek yaram woowu yàlla du ko lakk fukk